ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonte bi sant suñu ñaari waajur di leen sant leen gërëm yi internet yi ñuy topp fii ci Leewtoo TV chaque jour ngi leen li gën a fës si bopp xibaar yi ci noonu nag damay nuyu sama caméraman bi rek mañ ma fayee rek ñu daal di leen wéy ak ñoom ci revue bi jërëjëf euh, Ndeye maa ngi lay fay di nuyu bu baax a baax suñu bokk yépp ñuy topp ci Leewtoo TV di leen ñaanal bu baax jàmm salaam di ñaanal bu baax jàmm ak salaam sama waa dëkk waa Ndiaye maa ngi leen di naa leen trop Assane Walu nuyu naa la. Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu Mbaye Babacar di nuyu internetu Leewtoo TV amaat mbégte jàkkaarloo ñoom pour indi leen li gën a fës ci yenn kaayu lamb ci. revue bi nag Ibrahima Jador moo leen koy may chaque jour fii ci Leewtoo TV te noonu nag dañuy xëy ak li nga xam te ne mooy Leewtoo point net. pour des raisons qu'on ignore Pape Thialis Faye le boss de Leewtoo production annule le combat qui devait opposer Boy Niang 2 le fils de Dégol et euh, ci Leewtoo gannaaw ba ma jëlee ñaari mbër yi bu leen Joal Fadiouth ñu yëngal fa ku ci nekk wane sa form ñoom ñaari ñëpp ñu nekk ci ay état de forme yu baax macha allah Pape Thialis xëy ci Leewtoo point net xamal ñu ne combat boobu la dootul mën a am ndax daf koy annulé Assane bu mel ni amateurs yi kon mën nañu wax ne seen yaakaar tas na xalam demoon na koy neex moom ba dox. dëgg la Mbaye Babacar yaakaar sax na ndax benn information moo ñu xëy jot ñu muy. Pape Thialis Faye renonce au combat Tafatine Boy Niang 2 mu mu nekk finalement que Pape Sage dootul tëgg combat boobu pourtant commencé woon euh, promotion bi ndax weekend bi passé rek euh, ñaari mbër yi daje woon nañ Joal ci gala de boobu ñu fa tëggoon dikk fa def fa affaire yu neex mais malheureusement ginnaaw bi ñu jógee ci euh, ci événement boobu benn information ñëw na comme quoi que cet Pape Thialis Faye dootul tëgg combat boobu combat boobu nu ma fàttali ne ñu ngi ko prévoir woon le 25 juillet di ñëw ma nga noonu la lu ci mën a am nag dinañ ko toppal ba mu sës incha allah jeudi 1er avril journal suñu la moom xëyee ci xëtam mu njëkk Lanjang mi di xam ne mooy pare nañ les plans Mbaye Babacar Lanjang moo yëkkate yooyu la kàddu nekk ka nga xamante ne bii ku jege trop Eumeu Sène mii la nekk fële ca écurie Tay Shinger mën nañ wax ne sax loxo ndeyjooram Eumeu Sène wóolu ko lool fu ñu gis Eumeu Sène gis ko ci wetam lanjan li mu wax mooy champion bi di Eumeu Sène pare na ci côté yëpp te le 4 avril incha dana leer. dëgg la Mbaye Babacar Landiang bras droit di Fouta Taïsinga Eumeu Sène. et prêt sur tout les plans noonu la ko journal suñu làmb titré moom mi nga xam ne moo xëy dalal la ñang ci journalam waaye kii di bras droit Eumeu Sène bi nag teg na ci nee na euh, Lac de Guiers li mu fas yéene instant bi mooy xeex Eumeu Sène waaye moom li mu ñaan mooy que ne lii mu wax ni bu mu ci jóg le jour ji na ñëw xeex dina gis euh, biddiw bëccëg bu soobee yàlla teg na ci également que ne Eumeu préparation combat bi ki mu ciy àndal mooy euh, Boy Niang 2 ak Ama mu mel ni doomu Pikine ñoom ñett ñoo ñu am combat ñoo ànd di entraîner. waaw ñoom ñett la 100 pour cent Pikine la ñu def te buñ réunir seen i doole yaakaar naa seen préparation war na baax. mbooloo mooy doon. l'union fait la force. <laughs> en conflit avec Khadim Gadiaga kii di Modou Lo le le roi des arènes quitte Rock Énergie Mbaye Babacar. Modou Xarañ Lo moom mi nga xamante ne bii moom mooy roi des arènes mën nañoo wax ne jóge na écurie bale di écurie Rock Énergie gannaaw ba mu amee ay jàppante digganteem ak ki nga xam ne moom mooy Khadim Gadiaga. en conflit avec Khadim Gadiaga Modou Lo quitte Rock Énergie noonu la ko journal suñu làmb xëy informé ñu nee na Modou daal mii jógee na Rock Énergie bi nga xam ne nii depuis début carrière am ba léegi foofu la nekk lu tax mu jógee fa nag journal bi nee ne dafa am problème ak Khadim Gadiaga Khadim euh, fa nekk yëpp ñu ngi daje di entraîner même ak même heure ba Xaarim gaa teg ko benn ambaan boo xam ne ni un million la waroon fay ñu fàtte loolu euh, Modou Lo loolu loolu tax daal finalement Modou Lo quitté euh, Rock Énergie bi euh, suñu wax na loolu dégg nañ ci tànk sàmm Modou waaw xam naa bu fa jógee moom du yàgg mu créer beneen écrit ndax force mu am pour mën a continuer carrière am ma nga nag battre Eumeu Sène et Bombardier Lac de Guiers 2 le Puncheur de War et Balla Gaye 2 le Lion de on rendez-vous avec l'histoire mu mel ne ñaari mbër yooyu rek ku ci daan wala ku ci daan combat bañ jëm di nga dugg ci histoire bi Mbaye Babacar mi ngi noonu ñoom ñaar histoire di leen xaar comme ni nga ko waxee ñoom ñaar ku ci nekk am rendez-vous bu mag nag ndax ñoom ñaar ku ci nekk dafa am fa nga xamante ni bii foofu nga jógee am foo teg sa bët ndax ku ci nekk am nga adversaire ak adversaire de taille ba nga xam ne war ngaa jàkkaarloog moom incha allah kii war a jàkkaarloog Eumeu Sène kii war a jàkkaarloog Bombardier ji. dëgg et Lac 2 et Balla ont rendez-vous avec l'histoire lu tax journal bi wax lii nag mooy Lac de Guiers 2 Eumeu daf ko daane woon le 8 avril 2012 Balla Gaye Bombardier daane woon ko le 8 juin 2014 te ñoom ñaar ñi ñëpp euh, Eumeu Sène war na dajewaat ak Lac 2 Bombardier war na dajewaat ak euh, Balla Gaye 2 looloo tax daal journal suñu làmb mu ne Lac ak Balla Gaye am naan rendez-vous ak histoire ndax amun droit pertaat ci diggante seen ñaari adversaires yi. comme ni ko Ndeye Mbacke waxee ñoom ñaar ku ci daanu rek boo yéexee yaa ngi ci biir saako. dëgg la ku ci daanu di nga am problème pour nga jógaat. ma nga noonu nag lutte simple lañ jëm à na 1 million 200 en jeu jeudi e vendredi incha allah Mbaye Babacar. muy tey ak suba foofu ca Amdalaay dëkk ba nga xamante ne bii ca Gambia la nekk ñu bëgg làmb lañu nag. ci noonu rek may nuyu bu baax a baax kii di euh, Babacar Sow moom mi nga xamante ne bii promoteur la foofu euh, am na laaj tey jii ak su bu ñu fas yéenee teg 1 million 200 bu ci yàlla àndee tegal ko mbëri ñu fas yéenee jogante loolu di li traditionnel. dëgg lutte à Amdalaay 1 million 200 000 en jeu c'est jeudi et vendredi noonu la ko journal suñu làmb waxee am Amdalaay mi nga xam ne nii bokk na ci village yoo xam ne nii ñoo njëkk dalal ay gala de lutte ci saison bi ndax Sénégal amul woon làmb te promoteurs yi foofu lañ doon dem daan fa tëgg seen làmb tey nag am jàkkoo moom moo fa dem tëgg fa un tëgg fa un million deux cent mille benn bis moo xam ne ni euh, dina woo euh, ténor yi nekk ci lutte simple yëpp euh, gala boobu nag tey jii ci jeudi lay commencé war a jeex suba ci vendredi bi incha allah. ma nga noonu nag cherté de l'arène nationale kii di Matar Ba subvention la locali la location mu mel ni kooku di ministre bi rek wàññil na leen benn poids ñoom promoteurs yi Mbaye Babacar. ba ñu ba ñu ñaxtu ne la ñuy fay foofu ci arène nationale dafa bari ñoom promoteurs ñoo wax ne li ñuy fay ci arène nationale dafa bari trop bi di ministre Matar Ba mu mel ni def na ci ndimbal Assane ngir ñu wàññil leen. dëgg la Mbaye Babacar cherté de la l'arène nationale Matar Ba subvention la location. Euh, journal suñu laa moo xëy wax ñu loolu ndax ginnaaw bi promoteur yi doon kaasee ne location arène nationale bi dafa euh, cher ndax 500000 nga doon euh, décaissé pour nga loué ko journal bi nag leen nee na Matar Ba dikk na wàññil na leen loolu subventionné ko waaye nee na yemu ci ndax sécurité bi également subventionné ko ndax bu njëkk da nga doon fay 500000 pour am force de l'ordre yi mais nee na léegi mil rek ngay joxe yow mii di promoteur yi pour nga mën a réunir force de l'ordre yi ñu sécuriser sa sa làmb. mu mel baax na ci làmb waaw loolu nag pour saison bi rek la ndax mm. euh, pandémie moo fi nekk mu bëgg leen jàppale moo tax mu def li waaye xam naa bu déwénee incha allah day revenir à la normale. dañuy delluwaat dañuy delluwaat boobu ca bëri. voilà. ma nga noonu nag ba léegi lutte simple la ñuy desandi gala de lutte à Nangan le 12 avril 2021 Leewtoo production mise 1 million cent mbay Babacar. gannaaw bu mu jógee foofu te Joal Fadiouth Leewtoo production fa mu jëm mooy Nangan Samb incha allah bu yàlla tegal fa mbër ya un million cinq cent à cent dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bu ñu jógee Joal weekend bi passé di samedi 27 ak euh, dimanche 28 mars bi passé tëggoon fa benn mise 1 million foofa ca Joal Leewtoo production ak Pape Thialis Faye nag ñu ngi jëm le 12 avril bii di ñëw foofa ca Ndangaan lu mu fa tegaat moom mooy un million 500 ñi war a tëgg gala boobu nag mooy Ndeye Fatou Adama Jali ak Ibou Sène de Fimela ñaan ñi daal ñoo war a animer gala de lutte boobu. mu mel ni kon Pape Thialis est-ce que nekkul dafa bëgg a bàyyi bëre dóor bi dem ci bëri simple bi. ah en tout cas dina leeral peut-être ci jours yi di ñëw wala ci heure yi di ñëw en tout cas mi ngi ci lutte simple bi te ba léegi li euh, lim naroon am ci lutte avec frappe bi bàyyi na ko pour le moment. nee na daal daa wax mu neex mu delloo fab ab loxoom. jeex na dafa dafa wax ni njeexaat foo forom doo delloo fa sax. <laughs> ma nga noonu nag ginnaaw bañ jógee Saint-Louis ndaan dari àddu ci nga xam ne mooy combat bi dox diggante Lac de Guiers ak Eumeu suñu làmb dafa def micro trottoir dem fee ca Kaolack waa Kaolack décrypté nañ combat bi nga xam mooy dox si diggante ñaar ñooñu joxeen seen xalaat Mbaye Babacar Kaolack Ndangaan la micro trottoir bi amee nga xamante suñu làmb moom moo ko def su ma juumul Assane sa xarit ba Ablaye Diagne moo ko def euh, waa Kaolack ndaan Kaolack waaye nag andi nañ seen xalaat ci diggante Eumeu Sène ak ki nga xamante ne bii mooy Lac de Guiers dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi ñu ko defee Saint-Louis démb tey nag euh, bureau territoire bi Kaolack la amee lekkalok waa décrypte le co la komba combat lac de guerre euh, de Eumeu Sène euh, ay nag ay nit yoo xam ni foofu sa Kaolack lan dëkk ñu mën ci gis Aliou Bari Aliou Bari moom chauffeur taxi la moom li wax nee na lac parle bien lors des des des face à face wala lors des Eh, signature voilà nee ne bu signature jotee daal Lac de day wax ba nga ne kii bu jàppee adversaire bi daf koy rey mais finalement du deme eh, Abdoulaye Mbacke la moom lu wax ñaari nee ñaari mbër yi kenn du ci may moromam dara am na ay ni ay ni ma Diop kii moom conducteur de camion la lu wax nee na ëmm est en fin de carrière nee na ëmm moom instant bi bàyyi làmb la gën a jege que continuer carrière ndax xaw mi ngi waaj a màgget am na également Pape Mas Diallo kii moom benn élève la mu wax ne ne de 2 d'aujourd'hui ne est différent de celui que nous avons connu nee na lak bi ñu xamoon démb ak lag bi am tey bokkul nee na daal am na changement bu baax a baax ku ci mujj moom mooy ay Aydara kii benn coiffeur la maanaam day wat kii moom ni li wax nee na lak est un défenseur central moom nee na lak daal défendre la gën a mën ka euh, attaquer. ku ci nekk yëkkati sa xalaat ci boobu le combat. waaw ku nekk wax na ni nga gisee combat bi waaye li ci leer li ci euh, am daal mooy que ne la 4 avril la lépp di leer. incha allah bu neexee yàlla. ma nag deuxième journée Mouniang production à l'arène nationale su euh, Cheikh Super Diamono adversaire capitaine dina le 11 avril Mbaye Babacar. Serigne Modou Niang fas yéenee ñëwaat ci làmb ji gannaaw ba mu tëggee première journée. war a tëggaat deuxième journée incha allah le 11 foofu ca arène nationale combat ba war a dox ci Cheikh Super Diamono ak ak di combat ba nga xamante bi combat bu nar neex la sax. dëgg la Mbaye Babacar Serigne Modou Niang moom mooy jiite Mouniang production moom na ginnaaw bi mu defee première journée am dimanche bi passé ci arène nationale combat bi nga xam ne ni moo doon dox di booy diggante booy melax ak euh, B52 junior te booy melax daane ko mu Mouniang nag mi ngi jëm ci deuxième journée am loolu kañ lay am la onze avril bii di ñëw kan lay boole mi ngi war a boole Cheikh Super Jamono ak capitaine Dina loolu nag moo war a nekk deuxième journée lépp ci arène nationale lay amee. ca noonu nag suñu làmb door kay baax va organiser la cérémonie après le Ramadan Mbaye Babacar euh, suñu làmb door bi nga xamante ne bii écrit kaay baax la ñu ko joxoon asal mhm. écrit li ñu bëgg mooy ñu organiser cérémonie bi incha allah bu ci yàlla àndee bu ñu jógee ci koor dëgg la Mbaye Babacar suñu làmb door benn trophée la bu journal suñu làmb créé trophée boo xam ne nii day couronné écrit bi ëpp ay victoire wala écrit bu jël pee ci saison bi ñu génn Euh, kaay baax nag saison bu le passé moom moo ko jëloon ñu waroon ko jox trophée bi le 19 décembre bu le passé waaye Covid bi moo taxoon ñu fomm ko léegi nag ñoom ñi fa nekk di kaay baax waa kaay baax euh, ak coach bi di am. organiser organiser cérémonie boobu bi jógee ci weer. après euh, weeru koor bi. ma nga noonu nag ca ka ñuy jeexalal jeexalee mooy prince prince mu ngi tëgg fenn lu simple ci arène national le 3 avril incha allah teg fa mise 3 millions 600 mbay Babacar. ñetti millions ak téeméeri junne ak ñaar fukk la fa teg foofu ca arène national incha allah. loolu war a am le 3 avril incha allah bu ci yàlla àndee foofu ci arène national du journée ba nga xam ne asal mën nag faa xaar champion yu bëri ndax gars yi fu ñu dégg mise bu mag dañuy dem. dëgg la Mbaye Babacar ginnaaw bi Fallou Ndiaye demee arène nationale mu réussir lool Prince tamit bëgg na fa dem moom kañ la fa bëgg a dem le trois avril bii di ñëw maanaam dans quelques jours yàggatul léegi mu ñëw moom nag lu mu fa teg mooy 3 mille si 3 millions 600 mille la yëkkati teg ko ci eh, arène bi pour mbër yi eh, lutte simple yi moom mi nga xam ne moom moo jiite PAB Evans moom nag bëgg na eh, journée bi réussir trop trop trop moo tax mu yëkkati 3 millions 600 teg ko foofu. ma nga noonu nag di la jaajëfal bu baax Assane Wall loolu moo nekkoon di gën a fas si bopp xibaar yi mbay looy tàggatooyee xanaa jaajëfal ñëpp dig leen daje insha bu ci yàlla àndee suba ak jàmm wante du nuyu sama xarit ba nekk fële ci am na ñu naan ko Babacar saw borom oto yi le grand promoteur kontaan naa ci yow doom day amal jàmm bu baax maa ngi jaajëfal ñëpp di leen dig daje incha allah suba ak jàmm. Assane Wall looy tàggatoo ne Mbacke di la remercier di remercier équipe bu Leewtoo yëpp Yacine Fall Mansour Bilal ak waa Linguère di leen jox dig daje suba ak jàmm incha ma noonu nag di leen jaajëfal bu baax am contentement ak mbégte di leen indi li gën a fës ci boppu xibaaru làmb chaque jour maa ngi gërëm sama caméraman yi di sant bu baax a baax Kébé sama lonko bi bégg naa la bu baax a baax Kébé Diakhara ah ak Bilal sama gën naan ko bienvenue rek dalal ak jàmm leen jox di daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.